ku nekk ca biir li ngay liggéey ya journaliste la dafa am ay règle su ma leen ne woon déedéet journalisme du loolu nangam ak nangam ak nangam te fekk yow li nga jàng dafa am ay règle léegi nag ñoom ñooy jàngal ki jàng alquran moom itam ne waare nii lañ koy defee ñu ne ko déedéet bu waareeti noonu ndax loolu boo ko defee da ngay heurter ñeneen da ngay def ñeneen